maanaam càmbaraat lépp ba mu leer bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu war a lëmbëcc ressources budgétaires yi nekk ci ministère yëpp daa di audité yi tamit recrutement yi nga xamante ne def nañ ko ci fonction publique président Diomaye daa nay sàkku tamit lu leer ci li nga xamante ne moom la ñu xaatim ni ay xeetu convention financement diggante Sénégal ak yeneen réew yi waaye tamit diggante état ak secteur privé bi Vox Populi di ko ci feelu di xam ne ni ci ndajeb conseil des ministres bu njëkk bi président Bassirou Diomaye Faye plan Sénégal émergent ngir imposer li nga xamante ne moom la ñu duppee projet ci biir yéenekaay bi ñu ñuy xamal ni njiitu réew mi sàkku na ci gouvernement bi ñu daal di soppi doxalin wi ci wàllu koom waaye tamit ci wàllub social waaye njiitu réew mi yamu ca sàkku na ci gouvernement am ñu daal di fexe ba baral liggéey bi te fexe fi ak njeexteelu weeru avril bi ñu daal di ciy fësal plan d'action waaye tamit agenda bu leer ci li nga xamante ne sas na leen di liggéey Vox Populi dëggal na yi tamit ni lu jëm ci programme yi ak projet yi nga xamante moom la ñu am jamono ji capital humain bi ak ressources budgétaires yëpp yi nekk ci ministères yi faaw ñu daal di koy lëmbët li Bassirou Diomaye fay fas yéene lëmbët moo tax bis bi la jour jàpp ni projet bi ci boppam moo ñëw tas plan Sénégal émergent bokk na ci projet boobee nga xamante ne suñu naataango yi fësal nañ ko mu tënku daanaka ci juróomi ponk bokk na ci ponk yooyee li ci gën a fës li président sàkku ci premier ministre mu daal di na sa plan d'action fii ak njeextalu weerub avril bi ñu daal di càmbar maanaam auditer recrutement yi ci fonction publique ak li nga xamante ne moom mooy kopparu réew mi xanaa kay li yéene kay groupe E-Média bi di laaj mooy ndaxam projet bi ci boppam dina soxla ab groupe consultatif ngir daal di am ab financement li am ba am projet boobu daal Bassirou Diomaye Faye bëgg na koo jëmmal yéenekaay bi di la Le di kar na tamit ci coppite yooyee nga xamante ne nguur gu bees bi na mën na ko indi ba tax muy xamle ni projet bi ci boppam moo daal di effacer PSE ba noppi yéenekaay Madiambal Diagne bi di la leeral ni ci di diirub juróomi at lu toll ci juróomi mbëbët la président Bassirou Diomaye Faye daal di am moo tax mu sàkku ci premier ministre am di Ousmane Sonko mu daal di fexe ba samp plan d'action gouvernemental bi nga xamante ne ci la ñëpp war a tënku Idrissa sekk génn ci li ko tënkoon ndax gannaaw ba mu jullee korité di ki démb ba noppi yéenekaay bi di Vox Populi di ñu xamal ni Ndamal Kajoor rafetlu na bu baax a baax ne élection yi tëddee nee nag léegi waxtu politique jeex na jëf kese la ñuy xaar ci gouvernement bu bees bi fexe ba génnee sénégalais yi ci jafe-jafe gi ñu nekk te teg réew mi tamit ci njub réew mi nekk ci jàmm waaye tamit ñëpp juboo mu mel ni loolu moo fës li nga xamante ne moom mooy xutba ci feetub korite gi le soleil yéene kay di kaat mel ni kuy rafetlu li ñëpp bokk daa di julli li nga xamante ne moom mooy korite gi yéene kaay bi fësalaat kàddu njiitu réew mii di Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ne ci grande mosquée bu ndakaaru la jullee wax ni yéeneem mooy fexe ba sénégalais yépp daa di jubbawaat ci seen biir 24 heures di kaat tamit ci julli korite gi rawatina ca grande mosquée bi nga xamante ne foofu la Bassirou Diomaye Faye nekkoon wax ci li nga xamante ne moom mooy juboo gi ci réew mi waaye a ñiy jàngale daara imaam yi ak xalif généraux yi Walf Quotidien di xamal ni ñooñu am nañu ngërëmal kii di président Bassirou Diomaye fay ki am ngërëmal gouvernement bi ak askan wi yépp muy Mahammed Boun Abdallah Dionne Rewmi Quotidien di ñu xamal ni premier ministre ba woon démb la ñu ko denc ca fi nga xamante ne mooy diwaanub Touba yéene kaay groupe Rewmi Network bi di kat ci hommage yi nga xamante ne kilifa yi daal dinañ ko koy jébbal ni ki démb ci cérémonie levée du corps ci hôpital principal le quotidien yéene kaay di kat na tamit ci ngërëm yooyu noonu ak hommage yi nga xamante ne dañ koo jagleel Mohamed Boun Abdallah Dionne ni démb te di xam ni kon premier ministre ba woon ma ngay nelaw léegi ca fi nga xamante mooy dëkk bu tedd bi di Touba. wàllub trafic de migrants moom la libération xëyee tey yéenekaay bi di xam ni ay doomu Népal yi ci doon yëngu ñoom la yoon daal teg loxo fii ci Sénégal lu toll ci ci ñoom la fekk ci ab immeuble bi nga xamante mu ngi féetee ci rue Saint-Michel angle a